wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaa wal mursaliin sayyidina wa mawlaana wa xabibina wa safiicina sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidil arabi wal ajam sayyidina kanzil sayyidi sayyidaati sallallahu alayhi wa sallama wa radiyallahu an seyxina wa imaamina mawlana cheikh ahmad bamba xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام لطريقة المريدية koy ñaanu sun boroom tabaraka wa taala mu àggale mboolem ay yéeneem ak mboolem ay naalam ci diine lislaam waaye ci toolub Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ndokkeel jullit yëpp di ndokkeel ñépp ci gudd gu tedd gii gudd gu riis gii gudd gu màgg gii ci barkeb ki tax mu màgg muy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama di ngeen gi mbindeef noo ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di jël sunu nuyoo ci daayira bi rek teg ko ci loxob sëriñ Adama lay mu jàllaleel ñu ko ci mboolem ñu mbokkal daayira bi yëpp di nuyu sëriñ Jibi bu baax moom it di ko ziyaara bu baax di jël nuyoo mag ñu nekk ci gox bi ak ci koñ bi teg ko ci alaaji Moussa Dieng mu jàllaleel ñu ko ci ñoom ñëpp jël nuyoo soxna yëpp rek nuyu leen teg ko ci loxo soxna astajan ak sunu wajur yi nekk ci biir kër gi yëpp di leen ndokkeel ñoom ñëpp ngir njëkkanteeg waxtu wi rek barkeelu ci rekk ci boroom guddi gi ak tolluwaayam ak foraayam ndax guddi gi guddi la koo xam ni guddi gu ñu war a jàngat la waaye guddi la koo xam ni dafa indaale message ndax kii yow dafa am lu tax mu ñëw bi mu ñëwee dafa am lu tax mu lu indaale màggal guddi gi noonu rek ñu ne Seydina Muhammad moo fi gën nu fetasu walla nu bég bu nu xëyee delluwaat suñuy kër résultat bi day des day mel ni kon message bi des na dañ cee war a jële ay leçon tiire leçon la guddi jàngat la jële ci ay jikko valeur yi ñu bëgg a ñàkk yàlla moom ma yónni innama bu'istu lil mutammima makaarimul axlaaq ngir ma ñoo rafetal jikko yi kon mel na ne mission boobu buñ demee ba jamono mu tàmbali effacé wu war na ñoo dellusiwaat waxtaanaat ci ay meloom ci ay jikkoom ba penc bi mën a jag adduna bi mën a jag amuñ beneen solution lu dul dañ koo déglu ndax bi muy ñëw dafa àndaale ñaari message yu ko mu wax ni moo tax ma di la yónni ci ñii ma la yónni cent vingt quatre lañ ñoom ñëpp ñii dañ leen a def garaatu nubba rek la ñu am waaye yónni wuñ leen ñii ñu def leen nabiyul ummi ñu def nabiyu rasul ñu tànn ca trois cent treize nee na gën ci biir lim boobu cent vingt quatre mille prophètes yéen a ci gën ñu baaje ko génne vingt cinq yàlla tudd leen ci alquran Serigne Touba tudd leen ci sindiidi ne leen ci gën ñu tànn ci juróom muy ulul asmi Serigne Touba andi leen ci tawfatul mutadarriina kon kenn ka nga xam ne nag mooy kilifa kilifa yooyu di sayyidina Muhammad rasul daa am lu tax yàlla yónni ko ci umma bépp nag wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina loolu ngeen a dégg mooy yërmande damaa damaa jiital yërmande ji waaye wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linaas loolu mooy yonent bi na jot moo tax ñun waa Sénégal ñu jot ci parce que prophète bi ñëw fi yónni fi saxaaba waaye message bi mu waxoon ni balliqoo nii wala aaya moo ñu andil bañ jot ci message rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam il faut nu jàngat jikkoom yi il faut ñu bañ a yam rek ci buñ ñëwee rasulullah yi rek ñu ne sallallahu alayhi wa sallam fetasu maa bëgg yelent bi te bu nu jëfee du dëppoog li rasulullahi sallallahu alayhi digle ku ko jëf ak lu ne mel nettali ab juddoom ay xar la ay kawe kawe la ay tedd nga la ndax yàlla mi ab mi nga xam ni moom moo ko jox valeur bi mu am bind rasulullahi ngir jëmmam bind mbindeef yeeg lépp lu mu bind mu bind ko ngir terale ko sayyiduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daf koo am nag bi mu koy tagg daf koo xool ci qualité xoolu quantité ba de dafa xool jikko mu peese moom yàlla mi moom mbindeef yi xam ne jikko moo am solo jikko mooy tax nit mën a am aljana ndax jikko ba rafetut boroom du mën a jëf lu ko yóbbu aljana waaye bu ci ko rafetee borom day mën a jëf lu ko yóbbu àjjana yàlla ne kon nag wa innaka la ala xuluqil azim yow sayiduna muhammad maa ngi lay gërëm maa ngi lay tagg ki sa jikko yu rafet yi nga xam ne moom nga amee kon il faut que ñu tiire jikkoom yooyu ku ko mas tooñ moom rasulullahi sallallahu alayhi wa moom jéggale la xam jéggale yonent bi sallallahu alayhi wa la xam jéggale jàmbaram ji ñu ko doon di seexul seexul xadiim jàngal na nu jéggale sëñ bee fi man sëñ bee fi raw te yow mii sëñ bi boo génnee ci mbedd mi koo taseel bu la tooñee moom mooy mujj daw génn sa yow doo jéggale doo baale population de base ñu ngi koy bëgg a ñàkk population bi ñu ngi ñàkk ñu ngi ñàkk ay ay ay valeur ñu ngi ñàkk yar ndaw mën naa taxaw léegi fekk mag mu ko mën a jur mu mën a dagg saaga ci kanamam sans mu am lu mu cay rus parce que amul teggin teggin ya moo dem yàlla bi mu ko yónni daf ko defar ni ko nag li ma la yónni dama lay yar nag pour nga mën a def nit ñi sëñ bi lu am solo la dama lay yar pour boo demee nga mën a def nit ñi yonent bi ne yàllaa ma yar adabani rabbi fa axsana tahbibi yàllaa ma yar gu rafet ma dikk rafetal yar gi man sayyiduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa jox yar moo tax ma nekk borom kersa moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa bari woon kersa su ma saa nañu ci du xuus mukk ci mbooloo mbooloo ma fa rek moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toog Sëriñ Tuubaa bi mu ñu jàngal wax nañu ko ci jës bu nee na jikkoom yi bindam bi ni mu rafete ni mu jekke waaye noonu la ay jikkoom rafete wa huwa akmalul wara xalqan wa xuluqan zahara wal mislu xattu lam yura am yura fi si yemi kon jàngalaa la na jikko ya waaye rafetaay ba la muy rafet rafet dafa laa wax ne jikko yi mooy li gën a tedd ak bindam bu tedd ba moom Seydina Muhammad ndax gàmmu dañ fi daje rek mu doon wax ju ñu waxtaane rek wax baaxi baax ci yenent bi yëpp te ñun du ñu seet lu ñu ci mën a roye bu ñu fi jógee bu subaa nanu meloon daaw bu gàmm gi dikkaatee noonu la ñuy mel kon lu tax kan ana lu tax nuy gàmm xana ana ndooleen ya ndooleen yi sëñ Tuubaa wax ni ku gàmm te gàmmoo taxzimaho bi sunnati yaquuduna lil jannati bi ixtiyaari muxlisin ci kaw nga selal ko jasakumullah kon lu tax bu ngeen ko màggalee te dëppale ko sunna li ma fi gis de li ma fi gis ci fii may gàmmoo gisuma mu déborde gis naa ni kon tegu na ci sunna góor ñaa ngi jublu penku di durus jigéen ñaa ngi noppi jàpp seeni kurus ñépp na teg kon mel na ni dund na sunna kon mi ci sunna sunna mooy loo xam ni bu ko bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sunna ñetti xaaj la ñetti xaaj ci la jóge benn bi moo ko def ñu roy ko ca mu bàyyi ko ca benn bi nit moo ko def mu rafet mu baax mu ne baax na mu bàyyi ca benn bi mu digle ko ñu def ko mu ne sunna ngoog mooy ñetti xeeti sunna gàmm nag mooy nettali jukkoy feeñ ak jamono sayyiduna muhammad ndax mooy ngëneel mooy mbég ndax guddi gii moo nu andil teraanga guddi gii moo nu fegal sawara guddi gii ndax ki ñëw moo andi huddan wa rahmatan bu du woon ak moom njub am fekkoon na tooñ bari moom sayduna mu dikk pour tooñ dañ sëriñ Tuubaa bu fekkee sell ak baax demal ca raaya li kulli min jumlatil axyaari martabatun lakinnama ahmadul muxtaaru muxtaaru tànnif tànnif mooy sayduna muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te mbëggeel gi nekk dëgg sa yaram du dugg sawara seydina muhammad a wax de mat olu tawxiiti xaramallahu jasadi wa min an naari bépp xol boo xam ni daf maa bëgg yaram wa ëmb xol ba woowa yaram araan ma sawara ci barkeb seyduna muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam borom guddi gi guddi gii bu masaana ñëw Serigne Touba na man sama lépp dama koo jëmee ci tagg rasulullahi ndax tagg moom mooy metatam bi muy liggéeyale Seydina Muhammad salaatu sitta bi matti sitta tatti bata matti sa'i déglul juróom benn weer damay julli ci Seydina Muhammad juróom benn weer dama koy tagg boole ko nag ak di kon waxut damay dama koy tagg rek ab julli ci moom pare ci dama koy roy la wax dama teg sama tànk ci fi mu ko teg kon bi fekkee dem nañ ba jamono wax yu ñaaw ñëw na quulu li naas xusnan bari na koy dem sawara làmmiñam moo koy yóbbu sawara yaay jëw yaay yàq sa deru mbokk yaa ngi yàq derub koo xamalu dara yaa romb gor solo romb yi dem xamaloo ko dara nga wut lu ñaaw teg ko ca xuulu li naasi xusnan yàlla nee wax leen lu rafet bu ngeen mënta wax lu rafet ngeen noppi bala nga ne man jullit laa jàng jàllal tuuti alxuraan nettali na la lan mooy tax nga doon ab jullit lan mooy tax nga mën a doon jullit lan mooy tax sa njullit mën a wér lan mooy tax sa njullit mën a wér